ku ne mës ngaa dégg madame Ramatoulaye Mbengue Sy ñu ko daan Rama Mbengue Sy muy dund actuellement aux États-Unis a été lauréate du trophée Prestige 2007 avec le défunt Moïse Ambroise Gomis mu nekkoon meilleure coiffeuse ci Sénégal ubbi na nag léegi complexe bu mag complexe Ramsès mi ngi nekk Pout am na Ramsès perlage Ramsès coiffure Ramsès computer embroidery maanaam daal machine yi léegi ñooy def li nga xam ni moom moo di maanaam daminé par ordinateur ñu naan ko broderie par ordinateur mu ñëw nag investir fii ci Sénégal dans le domaine de la confection maa la gëm de lii laa gëm de génn rek lu yàggul dara ñëw investir fii ci réew mi investir ci wàllu couture ci wàllu perlage ci wàllu broderie moderne avec des machines à ordinateur moom li muy def nii yépp fi nga xam ne fi la investir complexe Ramsès nekk fii ci Pout dañuy defar bépp xeetu broderie complexe Ramsès dafay defar broderie sur boubou hommes et femmes broderie pour ay commandes personnalisées broderie pour ay tenues dafay ñaw pour li nga xam ne moom moo di ay tenue pour usine à grande échelle day defar tamit ay logo pour seeni entreprise pour tout support commercial day jaay aussi machine ordinateur pour broderie de une à six têtes benn ba six têtes avec livraison garantie machine damina ordinateur disponible sur commande wala loo bëgg ci nombre de têtes rek am nañ ko ah Sénégal a ngi jëm kanam de complexe Ramsès 77 514 88 86 ou le 76 455 50 63 ca uni tamit mën nga ñu woo ci 001 347 575 74 27 wala 001 646 657 45 83 complexe Ramsès Diop Pout ma bég sama xol sedd ma gis ni sénégalais yaa ngi liggéey kenn du madame Ramassi Mbaye bonjour wala bonsoir ça dépend ci heure bi ngeen di jënd ak ñun duñu seetaan ñu ngi leen di nuyu Prince Fawcett Mara Live votre présentateur préféré ci seen émission préférée le coin des tiktokers sur la DS la chaîne leader la chaîne qui vous rassure nee naa leen émission c'est l'émission de la jeunesse l'émission de l'actualité comme ni ñu koy defee saa su nekk nag numéro bu acteur bu bees wala tiktoker bu bees tey nag ki ñu seet si nag dafa nekk doomu ndaanaana la ñuy naan euh, doomu artiste artiste la doomu star star la tey nag ki ñu seet si dafa nekk benn tiktoker ah ku bees suñu morom jeunesse bi la fi nekkal ñu koy wooyee Papa Diarra ah ñu bàyyi la nga nuyoo. salaamaaleykum gars yi maa leen nuyu di leen bëggee di leen ziar yi ñuy seetaan à travers des Prod waaw maa ngi nii daal yaa ngi gën a xam. <laughs> d'accord mais papa ñu bëgg xam depuis kañ nga commencé def vidéo yi. nekk ci TikTok bi di def ay vidéo gars yi bëgg ko depuis kañ commencé def. Euh, maa ngi commencé mois de mars bi passé. Mm. Euh, dama commencé woon noonu rek def ma woon juguma woon ci biiru def ay vidéo PC dama defoon pour biiru dugal def ay vidéo nii rek neex ma nii may def ay vidéo pour am lu ma dugal statut di partage yooyu noonu. Mm. far nag après may def vidéo di continuer def di def après affaire yi PC waaw yaa ma gën a xam gars yi dugg si commencé ma am ay ay connaissance yu baax yooyu noonu. Mm-hmm. après bu benn jour ma def vidéo ak sama yaay. Hmm. ñëpp si lañ ma gën a ràññee defe naa. Hmm. léegi ma def vidéo ak sama yaay mu peese mu continuer def di def di def ba gars yi ma ay ma ci am ay encouragement yu baax. Hmm. waaw ñu bëggoon xam tey ji Papa Diarra mooy kan Papa Diarra mooy kan souvent ñoo ngi lay gis si TikTok bi ngay def ay vidéo mu nice lool ñu bëggoon xam Papa Diarra mooy kan. Papa Diarra daal mi ngi nii Papa Diarra day yëngu si TikTok TikTok sax du liggéey. dañ ci nekk pour divertir yaa ma gën a xam. bégal suñuy fans ak ñu ñuy suivre. waaw. man damay liggéey damay liggéey arrêté naa sama étude damay liggéey nekk sama bopp mais TikTok mooy loolu dañ si nekk di foo nii rek. Mm-hmm. waaw pour divertissement. Ah. seddal yi comme ni ko ñëpp di defee. Mm-hmm. ñu bëggoon xam tey ji Papa Diarra dañuy dégg que doomu ndaanaan nga ah macha ñu bëggoon xam te ji yow tamit ndaanaan boobu mooy kan. waaw ndaanaan boobu mooy sama yaay moo ma jur. Mm-hmm. moo ma yar moo ma tette. moo ma xamal yoon bi ma jëm aussi. muy dërëm bu TFM. Mhm. nekk TFM di def liggéey bu doy waar. Mhm, macha man naw ko si loolu. Mhm. ñuy gis souvent yéen ngeen di def ay vidéo ah sa sa sa sa sa la plus souvent si say vidéo moom yéen ñaar yéen a koy ànd lu a loolu. waaw parce que dañoo am connexion. connexion benn affection bu am ñu ñaar dañoo déggoo dañoo bokk délire xam nga ñun fi ñu nekk rek dañuy ambiance lu bëggee loolu la moo tax ñun ñaar fu ñu daje day rëpp. léegi dañ ko ñu ko def essayer benn yoon mu dem. mu essayer waat mu dem. ñu essayé waat waaw léegi ñu nekk di si woon macha allah nit ñu bëgg leen mhm. mais est-ce que tamit euh, du ko yow si buzz boobu noonu suñ la déggee léegi si say wax def nga benn vidéo ak sa yaay mu percé nga mhm. defaat benn ñaar affaire yi di gën a percé mhm. est-ce nekkul que si ginnaaw buzz boobu ngay làkkatu tey jii si sa yaay ngay jëfandoo pour mën a percé. sama yaay maa koy may buzz. yaay may buzz mère. waaw sama yaay maa koy may buzz sama feeling bi ma àndal <laughs> fii <laughs> bi ma àndal rek loo na a frontière waa dem mhm. waaw que parfois tamit doo toog ah euh, ngeen xaw ak am comme yaay ak doom ñu ko ñëpp di amee malentendu euh, par rapport ak vidéo yi wala genre yooyu noonu malentendu déedéet mhm. man nekk ak sama yaay sax sama maam laa nekkal mhm. sama yaay fii rarement fi néew di nekk ñu def ay vidéo waaw parfois damay ñëw sa ba ñibbi te duñ def vidéo damay ñëw seet si ko rek waaw ñu ambiance bëgg Mm-hmm. Eh. ñuy gis que parfois tamit TikTok day am ay commentaires yu négatif ah mm-hmm. léeg-léeg mère bi tam xam naa dina dugg di gis loo xamante ne ni tamit du ko neex ah mm-hmm. yow mi si nekk tout le temps aussi di nga di nga ci nekk te doo am tout le temps du ngay am loola neex parce que ni ngay amee ñi lay bëgg noonu ngay amee ñi lay bañ ni ngay nekk ci vidéo yi tamit di gis commentaires yi TikTok euh, euh, négatif yi TikTok la laa lay def euh, man moom commentaire négatif au début au début ba may doog commencé nekk affaire daf man doon affecté Mm-hmm. ba damay dem ba naan est-ce que du ma parce que li jaru ko du lay andi mm-hmm. ay noonu mm-hmm. mais bu ma demee ba xam ne am na ñu ma bëgg am ñoom dañ may seetaan di jël seen temps di ma woo di ma nemmeeku di ma encourage di ma remercier di ma suivre partout bëgg ma jox ma seen lépp dem ñoom ñoo may jox ñoom ñoo may jox confiance bi may am ba damay continuer damay def sa ban vidéo nga njëkk a def sur TikTok mu gën a percé ban vidéo la vidéo bi gën a percé boobu maag sama yaay ñoo ànd moo nekkoon s première Um e and bokk la nekk suñ première vidéo troisième vidéo la première vidéo yi ma def yu ñu ànd yooyu yooyu kii mu ko woon jëluñu ko woon au sérieux dañ doon foo même boobu sax jëluñu ko woon au sérieux mais dañ ko dugal rek mu peese yeeg ok nga nekk xale aussi ah nekk si TikTok bi nekk jeune euh, ñu dégg ko aussi que à part TikTok bi am na leneen looy def lan mooy sa profession à part TikTok oh, ma réparateur la fii sama atelier tonton laa ne Mm-hmm. defar ay téléphone ku dugg sama page sax nga ko gis parce que mm-hmm. téléphone la laa ne mm-hmm. waaw te maa ngi sant yàlla ban conseil nga am booy jox ñi nekk ci TikTok bi ñi nga xamante ne nii tey jii amuñu ci luñ jàpp à part TikTok bi ci li TikTok lañ nekk vidéo yi à part loolu leneen lu ñuy def comme liggéey lan ban conseil nga am boo leen jox yow en tant que TikToker te ngay liggéey man du ma jugé nit bëgguma dugg si vie nit mais man li ma leen wax rek mooy TikTok application la bés bu ñëwee borom TikTok supprimer application ñu bëree Mm-hmm. donc pour man ci li ma gis sama point de ku nekk na nga dem xool leneen loo mën wala leneen loo jàpp parce que mm-hmm. TikTok du métier application mm-hmm. en plus euh, nga nekk xale du ñàkk ni dugg ko génn bi xale yi ñoo ñëw di la seet fan si yeeg yooyu léeg-léeg nga gis ku ñëw seet si la jëm la côtoyé tuuti nii <laughs> naka ngay dundee lool noonu ak waa gaale bi aussi no man loolu dama koy sante yàlla man sax man man man dugg ak bee génn bi nekk ma parce que damay liggéey aw ma mhm. jot. vingt quatre mhm. heures sur damay liggéey rarement laa jot te inch bi sax dama daw liggéey sax. pour mhm. ñëw fii def interview mooy loolu daal. ban fierté ngay am ci nekk doomu Mama Deureum ban fierté nga ci am tey jii soo doon am témoignage booy jox euh, booy wax si sa yaay tey ji lan ngay wax loo xamante ne nii mën nga ko jox en tant que doom yow. mi mu bokkal wala yow mi nga xamante ne moo la jox. Hmm. ban témoignage nga am boo ko mën a témoigner devant tous les Sénégalais lan nga am loo a wax. moo ko mën a jox. Hmm. loolu daanaka ñëpp xam nañ ko. Hmm. muy moom femme brave la dépendre ci kenn. jàppale ay rakam jàppale ay magam jàppale ñëpp. waaw femme brave la daal moom xam na fu mu jëm li may wax moom xam na ko jarul sax ñu nekk di wax moom xam nañ wax moom xam naa. Euh, mu nekk ñu koy nuyu de passage nag mu nekk yaay bu brave ah, yaay boo xamante ne yaakaar naa ni moom moo ñu gën a mën a wax ci yaayam parce que moom mi mu bokkal moom mi mu jur ah jii sa yaay ban instant nga mën a xool yërëm am yërmande ci moom xam ne kii sonn na daj na liggéey na ba tool fi mu toll nii. Mhm. tey jii ban instant ngay xool sa yaay am même pas fierté sax mais nga xool ko sa xol tooy. sama yaay moom daanaka fii sax du fi toog gisoo leen di ngeen ñëw fekkoo leen ko fi. nii sax mm. dafa liggéey. du toog fii parfois day dem liggéeyi dem ay tournée une semaine un mois man du ma ko gis sax lu bëri man du ma ko gis lu bëri sama yaay ay ay xanaa ay jamono mais jamono jii nii ku nekk yaa ngi jàpp si li nga jàpp mm-hmm. waaw moom mi ngi liggéey liggéeyam may liggéey sama liggéey te damay am fierté si moom parce que moom euh, comme nu ma waxee mel ni comme ñenn ñi mm-hmm. ñoo xamante ne ñu dañu topp si ginnaaw nit di duguru nit ay yooyu noonu moom doxu si mm-hmm. yooyu moom boppam la gëm liggéey ci ñibbi. yow ban instant ngay xool sa yaay xam ne kii instant bi wax na war na pause maanaam man ma jël relais bi parce que tamit moo ngi jëm mag te dina dem ba benn instant boo xamante ne mën naa ne dootoo ko gis mu soit mu voyager wala mu nekk feneen fu dul fii. Hmm, ñun ñun si li ñu ñun si li ñu yar moom yaruñu sax sama maam moo ñu yar. Hmm. ñun ci li ñu yar ñun dañu teel a gëm suñu bopp dépendre ñu si kenn. Hmm. même bien vrai que sama yaay mu liggéey di kii ñun ñun dañ dañoo gëm suñu bopp tey bu ñu bu demee voyage sax ñun ay suñu magu bopp lañ mun nañ demal suñu bopp bañ na ba sama yaay ku ko gis gis ma mhm. bi ñooy ànd bon bien vrai que ñoo ko doon defandoo ndax moom day watu comme man rek mhm. ñoo daan ànd di watu def lépp sama morom la amuñu nëbboo amuñu dara parfois fii lay toog sa gel la ins bu gisoon man ak Jamila mi sax suñu vidéo lépp mu ne sa gel bi moo la seet si woon moo mhm. tax nga ñëw mooy loolu daal mu sama morom la amuñu nëbboo lu mu xam damay wax lu mu mhm. am wax ko moom bien vrai boobu ñëpp loolu lañ ko seede amul na mhm. boobu kenn yow bu ñëwoon nii tey li nga gis mu commencé toog di raconté vie mhm. nga xam ne nii kii nit ku la amul benn melu comme ñeneen ñi ana sa ana sa maam sa maam kër ga moom ban relation am ak sa maam sa relation mu am moom euh, sa maam daanaka moo yar te sama yaay ba ba may nekk xale la sama papa gaañu may nekk xale léegi temps boobu noonu sama yaay tamit ak liggéey bi ak yooyu noonu mm-hmm. ak lii ñëw yëpp noonu day metti si moom mm-hmm. man xale laa xaw ma dara sax sama maam moo ñu moo ñu yar def li war ci ñun jox ñu mm-hmm. éducation bu baax dugal ñu école waaw ah, ak samay tonton ñu jàpp si ñun yarul bon toll ni waaw jii est-ce que mën nga ñu permettre ñu ñu déggante ak maire bi xam naa ni tamit fekkuñ ko fi mais ñu woo ko par surprise euh, jéem a am moom benn waxtaan bu ndaw rek est-ce que mën nañ ko woo asalaamaaleykum maman ñoo ngi lay nuyu waa tey nag ñu ñëwoon seet si euh, sa doom ah, euh, sur la DS Prod euh, chaîne bi nga xamante ne ni moo nekk Sénégal instant bi chaîne leader bi ah. ñu ñëw seet sa doom si émission bu bees bu ñuy wax le coin des tiktokers waaw tey nag ñu bëggoon xam tey jii bon témoignage nga ñu mën a wax si papa kan mooy papa tey jii. Ah, Mm-hmm. bu yaatu ku mën a bégale mm-hmm. xale bu oyof tamit bëgg yaayam am yërmande si yaayam mm-hmm. <laughs> tey su ma leen di dégg loolu laa ne euh, xale la benn jalti jalti nii de histoire nii de xuloo moom daal bégee rek mu def léegi ay témoignage yu rafet ci yow ah mais dafa arrêté jàng bi nekk ci métier parce que xale bu ambition la xam na lu macha allah mu def ay témoignages yu rafet léegi ci yow ah séddale la ay CD CD yu rafet en tant que doom yaakaar naa ne mbégte la ah tey gis nañ tam yow ku fier nga si papa mais tey ji ban conseil nga am conseil booy jox papa ak ay moroomam maanaam jeunesse bi léegi nii ñu ñuy surtout ñu ñuy nekk si TikTok bi ban conseil nga am boo ñuy jox ah. mm-hmm. Mm-hmm. am ambition xam lu mu bëgg. Mhm. TikTok nekkul loo xamante ni métier la. Mhm. mais dañ koy def pour passion. Mhm. pour bégal say bi koy def loolu sax jublu ko ci daf ko def di bégee ak ay fan sax lu nit def pour toppaat ci. bu mujj gi dinaa ko dañu namm sa yaay dañu koy. koy def nag def ko ba Sénégal yëpp d'accord ko. comme nañ def li ma leen ci lenn loo xamante ko gis xeeb leen. Mhm. wala ko gis yàq mhm. mhm. leen. dañuy da ngay toog sa kër xool maman ñu gis ni ñu gis ni euh, yaa ñuy wax léegi que euh, ñëpp dañ lay laajte wala moom dañ koy laajte papa ana sa yaay ana sa yaay est-ce que nekkul tamit que papa day làqatu si sa ginnaaw pour mën a am buzz TikTok bi gars yi di ko suivre. dëgg la.

papa ndax xam naa dinañ fi ñëwaat amaana dinañ fi ñëwaat euh, mën a toog ak yow si la am waxtaan bu yaatu si suñu diggante ak yow incha allahu rabi. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg wax ne bu seen i nawle dañ koy gis ngi leen di ñaanal yàlla defal allah amiin ñoo ngi lay ñoo la gën xam naa ñu bàyyi la nga yéegali liggéey bi ngay def merci waay jërëjëf incha allah incha allah jërëjëf merci Papa ñu am contentement dégg nañ sa yaay mhm. euh, mu nekk moom tamit exemple la si yaay yi yaay si biir yaay yi yaakaar naa ni ku am yaay bu mel ni waroo ragal ndax sa yaay dégg nañ ko léegi mu naan doomu ñay kenn du ko ñaanal euh, euh, am yaram mhm. gudd fan nga koy ñaanal yow tey ji papa ñu gis TikTok bi surtout nga nekk ko si di gis souvent que nit ñi dañ ko def comme arme de guerre xuloo bi fii xeex bi yàqante yi vidéo yi par par là te yow nga nekk xale. <laughs> nekk ci milieu bi. Mm. gën ma ko maîtriser ban lan nga ci gis. ah man daal lu ma am lu ma leen wax mooy. na mu sol te àdduna dafa gudd tànk. Mm-hmm. kenn xamut ku nekk fan ngay mujj. Mm-hmm. TikTok nañ ko rafetal rek parce que boo gisee boo seetloo ay ay yeneen dëkk yi. Mm-hmm. ay États-Unis ñëpp TikTok du Sénégal kese. monde entier ñëppay TikTok. Mm-hmm. doo gis mukk ñu ñuy def di saagante di di mm-hmm. publier vidéo yu ñaaw ci biir TikTok bi di def di ko yàq daal ñoom ku gis da ngay gis koo xamante ne dafa pataa sax dafa rëy mm-hmm. mais dañ lay encourager ci sa TikTok ah ba kooku noonu day am force dund uh-huh. di la di la jox passion mais fii Sénégal da ngay gis koo xam ne dafa sew sax ñu topp na yow dangaa sew yow xanaa doo lekk te loolu mën na pervertir nit mën na hmm. jaxase sa xel hmm. mën na la yóbbu sax ci ay xaru ay yooyu noonu loolu moom amul sens amul sens hmm. euh, papa yow tamit tey jii TikTok da nga ciy nekk ban mauvais souvenir nga ci mës a am ndax xam naa ne du tout le temps nga ci am bànneex di ci di saafo ak say say fans ban mauvais souvenir nga mës a am loo xamante ne doo ko mës a fàtte ci TikTok bi man TikTok nag bu ma si duggee ba léegi tëddi mosuma am mauvais souvenir ay kii yu baax rek laa ciy am macha allah léegi papa yow la mën a xaar tey tiktokeur en tant que doomu Mama Dram fa lañ la mën a xaar surtout que nga nekk si réseau yi man côté lañ la mën a xaaree tey jii. man man daa aw ma ngi nii daal lu ñëw rek ma accepté. Mhm. waaw bu leen ma xaas dara à tout moment mën naa génn. mën nga génn fa la neex nga mën nga ñëw remplacer. naa ñëw waaw à tout moment naa bon l'émission nag euh, jeex na ñu bàyyi ko moom euh, papa suñu suñu invité bi mu tàggatoo ak fansami am di jàmb mi ñu ñu déglu ko mu ba mu joxe euh, mot de la fin wax waaw maa ngi nuyu ñëpp ñu doon seetaan à travers DSprod di leen gërëm di leen wan ne temps tamit amul ñu ngi leen toog ñu di seetaan suñu vidéo parce que mënoo ngay romb ne kii ah kii mooy loolu mais leen toog seetaan ko mu jeex maa lay ku nekk maa lay fekk fi nga toog ne la jàpp loxo di la nuyu waaw di la wax kër nga dem abonné sama chaîne maa ngi ñëw te dama nar a yëngal game bi décembre bi du yomb de maa ngi ñëw dem leen abonné Papa Diarra 1 mm. maa ngi Instagram ak TikTok ak fépp foo dem rek réseau maa ngi fa. waaw merci ni lañ ko doon sàkkoo saay su nekk ah, euh, di ko ñaan yàlla muy terme ñu koy terminer si jàmm ak salaam di remercier sama directrice des programmes Mathi di remercier euh, la DS Prod la chaîne leader la chaîne qui vous rassure yéen ñëpp ñoo ngi leen nuyu à la prochaine sur un nouveau numéro ak seen artiste bu bees fan si yu bees merci au